mm -hmm. par rapport à tout ce qui, est, qui est en train de se passer Merci. dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde et qui influe ci li nga xam ne nii développement suñu xale yi suñu mhm. doom yi ci biir kër yi. gis nga mbirum góor jigéen yi nii nii nekkatul ñoom dépassé nañu stade sax ay way nañu légaliser non non non ñoom ñi ngi dugg ci biir kër yi. Mhm. ñi ngi dugg ci téléphone yi ñi ngi dugg ci ñi ñi ngi fu ñu mën a dugg ñu ngi fay dugg. Mhm. donc man je pense que peut-être le débat wala sax la conscientisation bi bi war am c'est plus envers ñun que di may euh, di leen di leen di leen di leen defal benn genre promotion mhm. li ma euh, par rapport ak li nga xamné ni moy visite visitu Mélenchon mirum go affaire góor jigéen position la ku ci nek amna ko Mélenchon xamna nañu neuy mhm. dëkk bi mu nek lolu c'est légalisé et que mom aussi tamit yàgg na diko diko di défendre donc dafa joxe rek position par rapport mhm. ak situation bi bu bu bu mel noonu mais li jot am li li am solo mooy man laa mhm. yaakaar li am solo mooy euh, gis-gis bi nga xam ne mhm. nii moom la ñu bokk entre Jean-Luc Mélenchon ak Ousmane Sonko ci déjà moom li li muy jiite France insoumise la mooy ñi nga xam ne dañuy bugg dañuy bañ Ousmane Sonko Pastef c'est euh, son premier discours anti système bu sax lañ ko doon woowee donc muy ñaari idéologie yo xamante ne ni xëy na euh, euh, am nañu foo xamante ne foofu la ñu bokk foofu la fof lañu la Jean-Luc Mélenchon yàgg naa dénoncer euh, situation situationniste bi nga xamné ni mom la ancien colon bi nekkee Afrique surtout Afrique francophone le fait que France dit, ci ay ci ay ci ci ci yenn tolé yi nga xamné mom la am

nekk euh, colon bi nga xam ne nii moom moo fi nekkoon di buum di buumi mais ba léegi di ko jaarale ci beneen forme boo xamante ne nii mm-hmm. euh, nekkul forme colonisation mais mm-hmm. beneen forme boo xamante ne nii tey suñu économie euh, xoj ko te suñuy ressource di ci def lu ko saf mm-hmm. di influer suñuy suñu suñuy gouvernant di leen defloo yenn yenn yenn jëfini loolu bokk na ci li nga xam ne ni war nañ ko dañ ko war a dindi te loolu moom ak Ousmane Sonko euh, bokk nañ ci xalaat goo xamante ne xalaat bu am solo la. Mhm. mais non par rapport au problème question aux mhm. ku ci nekk am nga ci sa xalaat. taxul mhm. xalaat yi euh, ci dëkk boo xamante ne nii moom moom boppam am na droit xalaat ne mbirum góor jigéen. nekkul loo xamante ne nii war nañ ko daganal moom mu xalaat ne xëy na peut-être mbirum góor jigéen lu ñuy daganal la ku nekk te te àdduna sax moo demee noonu. yàlla dafa bind te yemalewul. ñii dañuy xalaat lii ñuy xalaat lale mais le plus important mooy ku ci nekk mën a respecter moroomam ci li muy xalaat. Mm. te foofu mooy point de convergence bi entre euh, euh, Jean-Luc Mélenchon ak mm. Ousmane Sonko ci seen ci li nga xam ne mooy seen idéologie ak li ñuy xalaat. maintenant nag après ku ci nekk am nga ci commentaire wala xalaat boo xamante ne moom nga ciy def. Mm-hmm. mais li gën a am solo mooy que ne euh, yenn situation wala yenn problème yi nga xam ne. moom la mm-hmm. Sénégal di dund jamono gi te xëy na peut-être. Euh, union européenne wala sax ñi nga xam ne ñoo nekk njiital union européenne gis ko te dëgg ci seen tànk déjà ñi ngi doon wax mbirum euh, euh, bateau yi nga xam ne nii mhm. moom la union europe ki de pêche yi ni ko niñ ko niñ ko joxee union européenne ak mhm. union européenne moom apport bi nga xam ne ni moom lay am mhm. jugewuñu si foofu rek am na yeneen situation aussi tamit visa yi nga xam ne nii moom la ñuy séddale di ko joxe pour am visa Schengen mais c'est tout un problème mais waxuma sax mbirum am ko sax mais xaalis bi dugg ci mbirum visa Schengen yi rek mais ay milliards la yoo xamante ne ni sénégalais yi dañ koy ñàkk au profit de li nga xam ne nii mooy yeneen mooy dëkk étranger yi hmm. te mu nekk loo xamante ne ni war nañ ko xoolaat war nañ ko hmm. <coughs> war nañ ko gën a gën gën a saytuwaat da ngay dem uti visa nga déposé boo déposé boo amulee visa duñ la sax remboursé say hmm. say frais frais de visa loolu fu ñu ko teg ambassade Japon boo fa demee di fa déposé visa boo amulee dañ koy delloo et pourtant Japon bokk na ci puissance yi nga xam ne nii ci mm-hmm. àdduna bi lañ nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc il y a beaucoup de sujets yoo xamante ne mm-hmm. c'est lié au développement économique c'est lié à l'intégrité de de de bu ci nekk mm-hmm. ku ci euh, kii di euh, ku ci nekk war na ci war a mën gis boppam waratul rapport bo xamante ni euh, dañ leen di xolé comme l'ancien colon ni fi nekkee woon di def lu ko neex di def lu ko saf tek ci nak nek ci complicité ak suñu nguur yi yenn nguur yi sax lay wax euh, lu ñu bëgg jaarale rek jaarale ko ci ñom après moy yomb lolu dafa wara a te gis-gis bi nga mm. ci ñaar euh, voilà lui Christophe dalal ñu ziar monsieur